الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سن بوك الإمام أحمد مختار كانت دلسي تي ديمبلو سونو بروم سبحانه وتعالى دلين نويو دلين جوخ سن واتي واي دلين وخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فنجن من نيك تي ادنا بي اورغال كوب مو خام سنغال نغي ديغلو مو خام بيتم di leen masaw coono di leen baalu xaq di leen baal xaq di wax ne dafa am ñetti tomb yu ñu jëloon di ko euh, faram-fàcce suñu benn wëllëre bi ñu tuddee fulaan yónneewul ñu benn audio bu am solo euh, ma jël ci ñetti tomb yooyu euh, di ko jàngat tomb bu njëkk ba ñu ci doon waxtaanee li nga xam ne mooy euh, kàddu mooy wax boo xasee ba jib mënatoo ko wannaasu mënatoo ngëpp sa gémmiñ ndax xas na ba dem ñu doon waxtaanee tomb boobu am luñ ci faram-fàcce ci oje bu njëkk bi su ngeen ci <clears throat> Tibian TV di ngeen koy gis loolu nag dafa duggoon ci euh, benn tomb ci euh, ñett yoo xam ne euh, boroom xam-xam bi dafa waxoon ne ñett yi bu ñu xasee ba dem du ñu dellu kon nag ku nekk war na seet taxawaayam digganteem ak ñett yi ngir bañ a perte bu njëkk ba kon mooy kàddu mu am luñ ci jotoon faram fàcce ñaareel ba di Euh, temps xam nga temps moom dafa mel ne lu xaw a yaatu neexul a dégg waaye boo nee simili ay waxtu ay fan benn simili bu dem te defoo ca lu baax di ko rëccu kon nag euh, temps euh, waxtu fan yi ñuy dund lu jara bàyyi xel la am na luñ ci jotoon wax ci ñaareelu audio bi mu mel ni mu desee ñu faram-fàccee ñetteelu tomb bi nga xam ne boroom xam-xam boobu wax na ko euh, te muy ne lii de kóolute tubaab dina ko wax confiance ci biir euh, l'islam nag lañu ñu gën a miin sax ci kàddu dañuy wax amaana donte woon sax arab dina wax siqa waaye amaana daal mooy li nga xam ni moom moo rot ci euh, alquran moom la ñuy gis tam ci xadis yi ak ci bindu ulema yi kóolute te bu ñu waxee amaana it safaan ba mooy xiyaana mooy wor boroom xam-xam ne loolu tamit bu xasee ba nasax bu xasee ba jóge fi du dellusi loolu jara bàyyi xel la kon euh, kóolute amaana bu xasee ba dox ci diggante ay nit war nañ ko sàmm bu baax a baax ku nekk war nga sàmm sa wàll ku nekk war nga sàmm sa wàll di ko doxee di ko uh, wax di moytu lépp lu ko mën a nasaxal lépp lu mën a indi sikki sàkk ba kóolute boobu jóge fi wala boog sikki sàkk am ci te daanaka benn la kóolute moom bu sikki sàkk amee rek daanaka jóge na fi ma tax lu jar a bàyyi xel la te léegi nag suñu jamono wax dëgg yàlla wor bari na ku nekk suñu mën ngaa nettali ay jëflante jëflante ak ay nit yoo xam ne ndeysaan euh, war nañ la su ko defee kon euh, kóolute amaana ci jikko yi gën a am solo ci sunu borom fonk la bokk euh, su ko defee lu jara sàmm la bu ko ñaari nit seqee war nañ ko sàmm bu baax a baax ba nga gis ne ku mel ne yonent yàlla yusufa alayhi salaatu wasalaam ndeysaan kóolute euh, bokk na ci lu ko borom bi baaxe woon gis nga ay jaar-jaaram boo demee ki surata yusuf da nga fa fekk lépp euh, nattu bi ko soxna soosu doon nattu ndax mbëggeel bu tax mu tàggoog sagoom euh, jiiñ ko ne def koo siif ak la ci aju yëpp waaye yonent yàlla yusufa gis nga bi ndaw si tëjee bunt yi ba jublu ci mom mu ne ko man duma wor ki nga xam ni mooy sama nijaay moom laa nekkal fii te mu rafetal jëme ci man du fi jóge may def lu ñaaw sama digganteeg soxna kon gis nga loolu lu jara bàyyi xel la su ko defee moom ci boppam yusufa ba muy wax buur bi man de mën naa yore euh, Misr Égypte yore lu ñu war a mën a tuddee tey sécurité alimentaire intendance ak lépp lu ci aju dafa ne inni xafidun alim ij'alni ala ala xazaini al ard inni xafidun alim boo mu joxee ma nekk intendant ma yore daal kilifteefu lépp lu jëm ci wàllu mbay meek ndox meeg yi ci jëm gàncax gi euh, dinaa ko mën a yor ndax man de xafiis laa ku mën a toppatoo laa ku mën a sàmm laa waaye itam alim la koo xam ni am naa ci xeriñ ak xam-xam mënoo nekk xafiis nag bu fekkee nekkoo amin bu fekkee nekkoo koo xam ni euh, ku am kóolute nga ku wóor nga ku jub nga luñ la jox doo ko doo ko yàq danga koy ñongal danga koy sax euh, euh, soqali da nga koy sax gën a dëgëral danga koy yokk waaye doo ci luubal doo ci yàq ak yu moo tax it gis nga bi ko buur bi joxee poste boobu gis nga la mu def ci ati at moo sowe Misr ci famine ci xiif ak maral euh, defar réew ma ba mu jekk lool bu ko defee nga gis tam yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam moom it jaar-jaaram gis nga ba mu bàyyeekoo ci Misr ci Égypte di dem ba jege Madiyan mu fekk fa ñaari euh, soxna Eh, ci tënk rek mu dimbale leen te yàlla tax ndeysaan ci diggu àll bi demaat toog ci suuf garab ga fekk mi ngi tumuraanke mi ngi sonn eh, kenn ci ñaari soxna yooyu dem nettali baayam mbiru yent yàlla Moussa waaye la mu wax baay ba dafa ne ko yaa abati stajirhu fa inna xayra man istajarta alqawiyul amin yow sama baay na jël kii <clears throat> ndax mu nekk ci kër gi yor liggéey bi nga euh, soxla mu liggéeyal la ko waaye ki ki nga gën a mën a jël mooy koo xam ne xawi yun àttan na liggéey bi am na doole bi euh, waaye tam am amiin ku ñu mën a wóolu ku wóor gis nga kon naa ngi noonu loolu misaal la rek ci ñaari yonent yooyu su ko defee kon euh, nit wóolu la ci boppam bi naa par exemple mu jox la ay ay secret ay mbir yoo xam ni yow la wóolu ba waxtaan ci ak yow am na yeneen nit ay million doomu adama yu mu xam wala boog ñu bëree bari euh, xelam xalaatul mu wax ci ak ñoom waaye yow wóolu na la daal ba euh, wax ci ak yow secret loo xam ni lu sori la ci moom nanga fexe ba jàppal ko secret boobu tey bu la ko waxee même bu la ko laajul sax lam ca séentu mooy loo ko ca mën a dimbali ci conseil nasiha bu rafet nga jox ko ba pare nag sàmm secret bi yàgg moom waaye bu fekkee dafa la wax secret nga génn ci mbedd mi euh, dem wax ko feneen dem wax ko ñeneen euh, kóolute boobu euh, day nasax te moom boo xasee ba xam ne wax bi jib na la mu waxanteeg yow am na ñeneen ñu ko yëg te ci yow rek la mën a bàyyee ko kóolute day dem te boobaa dootul dellu si naka noonu ki nga xam ni daf la wóolu kon ni ma ko waxee ci boppam ci vie privée mi ni ñu koy waxee léegi wala mu wóolu la ci njabootam xoolal ki nga xam ni daf laa wóolu ci njabootam ci soxnaam ci ay mbokkam ci ay doomam euh, et cetera et cetera ubbil la këram boole la ay njabootam présenté la euh, soxnaam wala ay soxnaam ay doomam ay am di jàmmam. Euh, nga jaaree fa nag def loo xam ni lu ñaaw la loo xam ni rafetul ci njabootam ci noo ko mën a defee kóolute day dem yoonam te bu xasee ba dem dootu la mës ci njabootam noonu it ci alalam bu la ci wóoloo noonu it ci ay projet yu mu am naal ko wóolu ci nga war bu xasee ba dem dootul dellu si kon nag mbokki nañu bàyyi xel bu baax a baax eh, loolu ñuy wax amaana kóolute wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.